noo ngi sant yàlla bu baax nag bi nga xamante ni yàlla dimbali nañu euh, président Macky sàll ci mbaaxam moom ñu ngi koy ñaanal yàlla li mu bëgg ci réew mi ak li mu ci yéene yàlla sunu borom la ci yaakaar yàlla na ko yàlla defal projet yi nga xam ni taxawal na ko yàlla na ko sottal ndax boo gisee may wax ne nun ñi nga xam dañu di taalubéy Serigne Touba rawatina ñi dëkk Bawol ameel nañu njukkal goo xam ne war nañu ne président Macky Sall jërëjëf. aw xam nga comme am naa ndigal ci sama baay bi ma jur am ndigal ci sama sëriñ am ndigal ci sama kilifa muy président Macky Sall mu tànnal koo xam ni kii bu fekkee ni awma ndigal yooyu. su fekkente ni Cheikh Bara ci boppam ndax seex baara mën naa joxe ndigal ndax taalibe la am na yar am nay teggin Cheikh Bara Gueye am na sutura Cheikh Bara Gueye amul benn diiwaan ci commune yi bu may dugg te fekkuma fa jëfi Cheikh Bara Gueye amul fu ma dem ci 32 villages yi ma dem ci sama commune village su ma dem ne ma Cheikh Bara indi na fi ceeb indi na fi mboq te su koy indi kenn du ko yëg ndax man loolu ci la ma Cheikh Bara fekk mais mosumaa yëg ni mi ngi koy def kon Cheikh baara li ma ne tànneef la ci biir tànneef yi mucc ayib loolu moo tax ma def fukki fan ak juróom immobiliser sama staff gis nga ko góor ñi ak jigéen ñi presque lu mat cinquante responsable ci góor ak jigéen laa àndal ni ma àndewoon ak ñoom def 32 villages yi may wut maire yi ba gañe ko noonu la ñu àndewaat ak man tey jii ba buukale nañu tey suñu campagne bu àndee ak dogal yàlla fas yéene commune bi ñu am 100 pour cent pour ànd ak ki nga xam ni mooy Benno Bokk Yaakaar pour wateel Cheikh baare Gueye te noonu laay ñaani Sénégal gépp ñu wateele kon noonu Benno Bokk Yaakaar ngir président Macky Sall am assemblée majorité majorité mu am majorité absolue ci assemblée ngir mën a yeggale projet yi mu au bii ñëw danañ am majorité non seulement département Mbacké dinañ ci am majorité absolue mais biir commune Touba bu ànd ak dogal yàlla danañ fa am majorité boo xam ne bii bu éclatante lay doon bu soobu yàlla incha allah.